nan tey gërëm di way ak sant soxna xam ñu naan soxna di ko nan gërëm di way ak sant soxna xam ñu naan soxna jaara nga xam ne moom lañu jublu si barab bu mag bi barab bu bii ak barab bu tedd bii di ñaan ci barkeb sëñ di ñaan ci barkeb sëñ sa yéene ci sëñ Tuubaa na sa yéene ci sëñ Tuubaa yaa ko xam yàlla na yàlla ko yàlla ko la ko yàlla àggaleel biraa mi ngi nii jël na léppam nee na sëñ Abo mi ngi nii jël na léppam ñëppam ak ñëppam teg ko ci sa loxo ngir sëñ Tuubaa fas yéene déglu sa ndigal fas yéene déglu sa ndigal lépp loo nekkin ma nga ca lépp loo nekkul nekku ca foo ko dégg rek ak fu mu ne. lépp buum ko teg mi ngi ci sa loxo rek. nee na bu ak buumum ak njaboot gépp mi ngi ko teg sa loxo. waaw loo ci jëfandikoo neex na ko. lépp loo ci jëfandikoo it neex na ko. bëggoon naa ànd ak ñëpp ñëw na bëggoon naa ànd ak ñëpp ñëw. waaye daa xataat. waaye dafa xat rek. waaw li ñuy wax ne jot di nekkul jotaay nag moom. waaw di nekkul ci jotaay. waaw nag xol bi rek am solo. xol bi rek moo ci am solo. te xol bi mooy dëkk ak yow faaw. ndax euh, dañuy bandax niku Mm. taalibe ci sëñ Tuubaa nee na dañuy bandax ni ko ak taalibe sëñ Tuubaa ci yow ndax wóor ndax wóor nañu ne wóor nañu ne mag ñooñee boo tasee woon jamono mag ñooñee boo tasee woon ñoom jamono pënday xala bari rek pënday xala bari waaye doo leen ko bàyyi mukk waaye doo leen ko bàyyi mukk waaw Mouhamadul Fadal sama aajo faju ci moom nee na aajoom faju na ci moom ngeen xam ne yéen sama aajo faju na ci nee na kon ngeen xam ne yéen aajoom faju na ci yéen. noonu rek la nee na noonu rek la demee. amuñu benn xemmeemteef. benn xemmeemteef. ak lu xemmeemteef yi ak lu xemmeemteef yi bari bari bari bari. xemmee munu dara lu dul sëriñ bi rek ci dund gii ak gële ñu jëm sëriñ bi rekk lañu fa xemmem te man sax dara du ma xeeñ. man man mu ne moom sax dara du ko xeeñ. noonu la ma yàlla bindee. noonu la noonu la ko yàlla bindee. dafa mel ne ak taalibe bi daf may xeeñ. waaye dafa mel ne ak taalibe bi moom daf koy xeeñ. moo ma moo feeñ moo ma xeeñ nag ci kër nee na loolu nag moo ko xeeñ ci kër Cheikh Mouhamadul Fadel. noonu rek la demee. noonu rek la demee alhamdulilah. jërë ngeen jëf. jërë ngeen jëf. mënuma wax ne sama xol sedd na ndax rew na foofu. waaw nee na mënut wax ne xolam sedd na ndax raw na foofu ne sama xel gën naa dal. mënut a wax it ne xelam gën naa dal. ndax daloon na ci seex Mouhamadul Fadel bu yàgg. ndax daloon na ci seex Mouhamadul Fadel bu yàgg. te yéen a ngi ci biir loolo te yéen a ngi ci biir loolu. ca alhamdulilah. sama dal na bu baax a baax. nee na kon xelam dal na bu baax a baax. ci tawféex jooju mu am. ci tawféex tawféex mu am. am ko ci bi. am ko ci sëriñ bi. am ci seex Mouhamadul faadal mooy tawféex ji ma am ci yéen. mooy tawféex ji mu am ci yéen. alhamdulilah. te li ma lu ma xam lu ma bëgg ci bi. te lépp lu mu bëgg ci sëriñ bi. yéene naa leen ko. yéene na leen ko. kenn leen te kenn du leen ci jiitu. yéene ko yéene naa ko bépp boo xam ne sëñ waaye yéene na ko bépp xol boo xam ne sëñ Tuubaa nga ci biir. Mhm. alhamdulilah alhamdulilah. ñooñ sëñ ñooñ sëriñ tubaa ñëpp nee na bu sañoon ñooñ sëñ tubaa ñëpp dañuy am muccuk tey ak ëllëg dañuy am muccuk tey ak ëllëg te te te te te am nañ ko teyit am nañ ko alhamdulilah alhamdulilah mhm. ndax loraange ji fii ndax loraange ji fii bëgg sëriñ tubaa teggil nañu ko bëgg sëriñ tubaa teggil nañu ko rabbil alamin alhamdulilah sant kon nag sant rek. bi ñu amee sëriñ bi bi ñu amee sëriñ bi. di gën a yeesal sunu cant rek. di gën a yeesal sunu cant rek. seen jëmm yi. ci seen jëmm yi. di a dolli sunu yaakaar. di gën a dolli sunu yaakaar. di gën a soññ sunu bopp. di gën a soññ sunu bopp. di gën a soññ bokki yëpp. di gën a soññ itam bokki taalibe yëpp. li ma bëgg ci sëriñ bi de ci yéene kenn jiituwu leen nee na li mu bëgg ci sëriñ bi ak li mu ci yéene kenn jiituwu leen ci. waaye yéene naa ko taalibe yëpp. waaye yéene ko taalibe yëpp. alhamdulilah. kon mën nañoo yem foofu. kon mën nañoo yem foofu rek. lii lépp ndax lii lépp. <laughs> sëriñ bi noppi na ci bu yàgg. Eh, sëriñ bi noppi na ci bu yàgg. noppi na noppi na ci nun bu yàgg. noppi na ci nun bu yàgg it. alhamdulilah dafa fekk ne rek. dafa fekk rek ne. warunoo sàggan. warunoo sàggan. kon war na noo def suñu yitte yitte jëpp ci moom. kon war na noo def suñu yitte jëpp ci moom. ndax mu mel ne am nañu yéene fay ko. ndax mu mel ne am nañu yéene fay ko. ak lu nu ko tëlee tëlee tëlee fay. ak lu nu ko tëlee tëlee fay. mu xam ne am nañu yéeney fay ko. mu xam ne am nañu yéeney fay ko. loolu rek la loolu rek la alhamdulilah. jërëjëf jërëjëf Mbacke bu baax a baax sëñ bi nee na mi ngi ñaan bu baax a baax. sëñ bi suñ boroom gën leen a gàttandu ak tawféexi sëriñ Tuubaa. ci lépp ci lépp ci lépp nag. ci biir ak ci biti. ci tey jii nu ne ak ëllëg gënu jëm alhamdulilah. jërë ngeen jëf alhamdulilah. bu nu suñu borom gënee gàttandu ak tawféexi sëriñ bi rek. nee na yiwu àddina ak àllaaxira mi ngi ci biir loolu. muccuk àdduna ak àllaaxira mi ngi ci biir loolu. defarut defarut àdduna ak àllaaxira mi ngi mi ngi ci biir loolu texeeg adduna ak àllaaxira mi ngi ci biir texeeg ci biir loolu. alhamdulilah sama ñaan yëpp. nee ñaanam yëpp. mooy sunu borom. mooy sunu borom. dina dolli tawféexi sëriñ bi rek. dina dolli bi rek. ci sunu lépp ci sunu lépp alhamdulilah. jërëjëf Mbacke. waaye tollu neel amiin ngir mu baawaan ngir mu am ngir mu jëf ba sant fi jaay jërëjëf rabbuna جروا الأكبال هكذا شيخنا القديم ذو مجال